jàngeen jëf yéene kay tey ku ci nekk ak fi nga fële réew mi quotidien kàdduk Mamadou Diop Decroix tey la xëyee njiital agi nekkoon ganu grand oral ci njeextalee bis bi wax na yaatal ci lu jëm ci caution bi ak parrainage bi mu gis ni kon dara soppeeku ca xanaa kay taf yëngal bi mu jàpp ni moom la nguur gi nekkee ci yëf ci biir yéene kay groupe réew mi network bi Decroix dikkaat na bu baax ci li ñuy lam-lame muy daje bi nga xamante ne famille libérale bi war na koo def jàngat bi ñu mën a jàpp ci élection locale yi wees ak yeneen i ponk ci biir réew mi quotidien moom opposant bi dikk na ci bu baax beneen opposant Abdoul mbay nekkoon fi jëwriñ ju njëkk li mu yàkkul Macky Sall ci biir Walf Quotidien daf ko fàtte njiital parti ACT gis ni moom Macky Sall ci boppam amul benn war warmal jëmale ko ci constitution bu Sénégal ci yokkuteeg njëgu dund gi mu gis ni tamit nguur gi ci boppam moo ci amul benn pexe moo tax li muy sàkku ci biir Walf Quotidien mooy avion présidentiel bi ci boppam danu ko war a jaay Abdoul Mbaye wax na tamit ci lu ñuy xaar muy tànneef kii di premier ministre nga xamante ne dafa gis ni njiitu mi ci boppam dafa mel ni amagul ki mu wóolu Doudou Wade mel na ni politique wóolu Macky Sall léegi ki nekkoon candidat wàllu askan wi moom jàpp na ni njiitu réew mi Macky Sall dafa tàmbale def ay jéego ci li nga xamante ne moo jëm ci doxalinu réew mi moo tax ci yéenekaay bi di biis bi ñu jàpp ni jéggalaate moom dafa mel ni PDS ci boppam tàmbale na jéggal PDS mel ni ku noppi ngir fekki njiitu réew mi Macky Sall Doudou Wade di mel ni kuy raay Macky Sall ci bis bi waaye ci tribune ñuy fësal li muy mel ni kuy sànni xeer kii di Ousmane ndax ci yéenekaay groupe nekkul parti bu njëkk ci opposition bi Aliou Sall njëkk a wane boppam gannaaw élection législative yi wees moom rakk ci njiitu réew mi Macky Sall daa dinay samp ab mouvement politique am bi mu duppee renfort meeru Géejawaay ba woon gis ni kon Benno Bokk Yaakaar ci boppam moo soxla ki ko dooleel dooleel am déet le vrai journal li mu ci jàngat mooy Aliou Sall ci boppam dafa mel ni kuy topp ci tànku Karim Wade ndax jamono ji nga xamante ne PDS mu ngi nekkoon ci nguur gi ab mouvement la daa di samp waaye teewul mu mujj jàngalekat yi fu ñu mujj ak Sud Quotidien di xam ne ni kon njeexintal crise scolaire bi moom dafa mel ni yëf yi dafa am ab pëccëxoo ndax CIEMS sa UDEN ak yeneen syndicat dañoo xaatim protocole d'accord bi waaye CUSEMS ak SAEMS moom tey ji la ñu joxe dig daje ak gouvernement bi l'observateur fësal li nga xamante ne moo tukkee ci waxtaan wi diggante état ak syndicat yi proposition yi ak contre proposition yi naka noone li nga xamante ne tamit jàngalekat yi daañu ko am gannaaw seen xeex lépp ngi ci biir yéene kay l'observateur laata état bu Sénégal jéego ndax léegi enveloppe bi ñu jagleel jàngalekat yi daal dinañ koy yóbbu ci lu jege téeméeri milliards noone ne la ko Le Soleil yéene kay xamle lii am ba am L'As Quotidien mu ñuy xamal ni Sénégal wërngal këpp ñoo ngay toog di déglu ñii di waa CUSEMS ak SAEMS ndax ñoo yor kàddu gu mujj gi ñuy déglu njiitu réew yu Afrique waaye ba léegi waneeguñu seen bopp Dakar Times dikk na ci li nga xamante ne moom la ñuy sàkku ci ñenn ci ñoom ngir ñu fësal seen déclaration daal di ŋàññi taxawaayub Russie si seen coow ak Ukraine waaye teewul ba léegi ñu bëri ci ñu seen bopp loolee jaaxal lool Dakar Times Guy Guyo Group jaaxaloon ñu bëri ndax dafa doon yëngatu ci wàllu trafic migrant ak wàllub njublang mujj gi daal dinañ leen teg loxo ci jamono ji nga xamante ne daal dinañuy roppi alal gu bëri ci ay candidats yi nga xamante ne dañu doon wutali biti réew ndax ab ndaje bi nga xamante ne ci weeru mars bi lañ ko waroon a amal ca Portugal waaye ressortissant congolais bi jël seen xaalis te ba léegi gisaguñu dara moom ci boppam la ñu mujj teg loxo ñu sukkandikoo ci libération Cheikhou Kouyaté mi teg loxoom ci Coupe d'Afrique ji moom la stade quotidien daal di fësal jaar-jaarom ak équipe nationale ndaxte def na fukki at ba mu nekkee ci équipe bi lu ne mu daal di ko ciy dund gis ko ci tamit mu nekk ñeenteelu joueur bi nga xamante ne moo ëppee sélection dugal ñeenti but si Cissé muy tàggat suñu gaynde ci biir yéenekaay bi di xam ne ni kon moom Kouyaté ab soldaa dëgg la diggante Modou Lo ak Ama Baldé combat bi ba léegi leeragul li am ba am mën nañ ko organiser diggante weerub sulet ba weerub décembre Luc Nicolaï ki ko tëgg xam ne ni kon noppi na ngir daal di koy amal ci weeru août